ok sëñ bi maa ngi lay nuyu. ça va soxna si. yaa ngi ci jàmm. waaw tur bi naka la. Baye Demba. d'accord Baye Demba tey ñu ñëw fii seet si leen gannaaw gaal gi nga xamante ni dem na boobaak léegi kenn gisul kenn amu ci benn nouvelle aussi ma dégg for ci ay wew ba ñu ne def moo si mbëkk mi ñetti yoon ndax mën nga ñu ñëwlaatal ci loolu rek exactement naka rek la demee. waaw affaire ñun tànte naan ñett yoon mais yàlla moom def na moom eggu na ko moom lu moom lu naan jaam ak yàlla ak doolam mais bëgg na noo dem mais yàlla nag moo ko dogalagul mais tante nan tante waat demoon. non première bi noo dem ba fi ñu war a yéegee ñu ne police mi ngi ñëw kat après ñun ku nekk ñu dugg si biir àll bi daw xam nga li ma la léegi nag après nag ma tante waat benn bi tëmb nañ ñu ne marine baa ngi ñëw. après ñu teeraat léegi ñetteel bi yoon nag boobu nag tëmb na dem nan nag ba Maroc après nag marine Maroc bi nag jàppal mais ba tey yi moom su ma gisoon gaal nii damay dem waaw. Euh, mais Sénégal moom métti Sénégal fii yow xale bu ndaw da ngay am sa soxla te doo ko mën sigam isaan yi sigam xale yi dooru jutu sax dañuy am soxla kon waxatuma laa nag maanaam kon ñun ni ñu toll di laaj baay di laaj xam nga àdduna xam nga lu si lu si gën a métti maanaam nu laaj loo xamante nii kat yow yoroo ko si xam ma ne ma la maanaam tey jii ku nekk bu sañoon boo amee sa soxla yow yaa koy fajal sa bopp ak waa te ñun ñëpp maanaam ay nit lan te ñun dañuy am ay soxla te liggéey moom maanaam mooy première jaam yàlla quoi. loolu la yàlla wax quoi te ñun moom ay ndaw la mais bëgg na noo liggéey mais danoo gisul maanaam tey jii kat duñ liggéey affaire yi dem bii nii ñëppaay dem mu góor muy jigéen bu demee ba jigéen maanaam tey di di yegg si gaal rek nga xam ne Sénégal mitti na maanaam fii gars yi dañ lay téye ak wax naa la yàlla baax na yàlla yàlla baax na da ngay bay sa tool doo tëdd sablal rek naan yàlla baax na yàlla baax na ndaxte boo toogee boo tëddee sablal naan yàlla baax na yàlla xam nga kañ la la fay fekk. mais maanaam état bi maanaam na gëstuwaat jeune quoi te maanaam tey jii état bi maanaam bu sàgginee tey jii nii kat ba jeune yëpp tukki maanaam tey jii kat gëw ma ne 2024 na war a dina ko war a neexee ndax te jeunes yëpp kat mbëkki nañ parce que xam nga ne ma la maanaam état bi damay dégg ñu naan état mu ngi teg ay ay projet ay projet ay projet mais projet yooyu noonu tey jii nii kat après bu ko jeunes yi war a liggéey maanaam bu ñu demee tukki après ñan ñoo koy liggéey loolu mooy problème bi quoi. saa ma la wax maanaam ñoom nan nan jël seen xel yi di xalaat quoi saa ma la wax maanaam ñun ñëpp ay nit leen te mbëkk mi ne damay dégg ñu naan Barça waral wala Barsaax mais dëgg la moo am tey jii ne kat maanaam doo toog fii sa morom di dem mu leer na la kii bu demee jàlla yow ngay toog saa ma la wax maanaam wala Barsaax googu lii maanaam boo si dee àjjana nga jëm de ndaxte maanaam tey kat sàcc sàccewu nu ñaane woon danoo dem maanaam liggéeyi la ma ne voilà maanaam tey jii boo si dee biir àjjana nga jëm direct ndaxte kat defoonoo lu bon dañuy dem liggéey te liggéey maanam muy première jaamu yàlla yàlla lool yàlla moo ko wax du man du samay wax yàllaa ko wax. d'accord ñu gis ne dem na ci mais géej moom lépp risque moom géej moom lépp risque la géej moom lépp waaw ah. mais moom yàlla rek kaa dimbali fii moom ku muccee yàlla la muccal mais du sa ñàmbaar. man demoon man damay dem bëri na bëri na mais yaa ma gën a xam nit moom moom laa si maanaam ak ak looy mënti duggali nekk maanaam boo si boo si àndul ak sa fit rek doo dem mais nombre bi man xaw ma ñaar man de sensé que sama bopp daal laa lijjanti woon. mais ba ma demee tanti Diallo damaa xam ne kat yàllaa ko dogal sama bés moo ñëwagul mais bu ñëwee man dinaa dem. loolu sax jotoon waaye loolu noonu ay wax kese la fii moom war dëgg fa yàlla moom ñu ñëpp ay nit mais tamit maanaam dofunu maanaam ba xawante ni yow boo setul yow doo yëg si gaal yi yow tey ne boo setul yow doo yëg si gaal yi. mais yow day leer na nit ki setul maanaam man gaal gu ma yéegoon du ma porté kii ñoo si ñëw yéeg de gaal googu noonu bu ñu xoolee xam ne setoo yow mi doo yéeg si gaal yi c'est parce que am na ndox yi leen di sange am na ndox yi leen di sange maanaam bu la leeree ne kii nii du dem du dem beewoo sax nga paasoon ba pare xam nga affaire géej moom dafa garaaw quoi te nit moom maanaam bu nekkee si géej moom du ko tiital moom daa yomba waaw tey message bi ngay ay doomu réewam ah, moom nag gisuwaat ay doomu réewam rek loolu rek lan koy wax. te ne xale moom ni ñuy demee wax dëgg fa yàlla métti na trop te maam wax dëgg fa yàlla moom ku soñoon booy tekki tekkee sam réew. tekki moom wax dëgg fa yàlla tekkee sam réew moo dàq waa mais yow tey nga dem tekki sa réew yi jàmbur tamit di nga am tamit day yàgg rek mais say say njaboot moom kenn du ko si gis. ndaxte bu nekkee sama papa kat tekki na kat tey jii ne kat mu nga Europe de feeñ fii loolu mooy wax loolu mooy wax ji quoi. d'accord dégg naa aussi gaal bi nga xamante nii dafa dem ci fan yi te kenn gisu ko am nga ci ñenn ñoo xamante ni say xarit la ndax mën nga ñuy wax tuuti ci loolu aussi. waaw loolu booy mën nañ ñu guddeeg bëccëg fi lan daan toog yaa ma gën a xam di naan ataaya quoi man dama am si xarit bëri na booy mën a ñëw fi lan daan toog saa saa tefes gi fer ne ñu nekk fii si tefes gi fii di football yaa a xam mais affaire na trop. mais jaam ak pexeem yàlla dogalam xëñ na nag nii la yàlla bëggee woon nag waaw moom wax dëgg fa yàlla moom man ak ñoom moom ñoo doon toog fii guddeeg bëccëg billaahi non ban demee ba léegi nii kenn amul si ñoom tey jii lu leer yaa ma gën a xam mais tamit ñu ngi def tamit seen i recherche tamit waaw mais dëgg fa yàlla affaire miti na trop waaw waaw